أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم mbokk yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñu ngi ñaanal sunu yenentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu ñu ngi leen di ziyaara ci weer wu màgg wi nu nekk muy shahru ramadan al mubarak ñu ngi ñaan buur yàlla tabaraka wa taala lépp lu ñu jaamu yàlla mu néew mu bari yal na ko yàlla nangu lépp loo xam ne tarxiis nañ yal na ñu yàlla jéggal mbokk yi balaa imaam di ñëw ñu ngi fàttali sunu bopp di leen fàttali ci bind bu mag bi nga xam ne yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam moo ñu ko jox mu ne man taraka shay'an lillah awadahu llahu xayran minhu yunti yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na ku bàyyi dara ngir yàlla yàlla jox la lu ko gën man taraka shay'an lillah ku bàyyi dara ngir yàlla lépp loo mën a bàyyi lu mu mën a doon borom bi tabaraka wa taala dina la jox lu gën li nga bàyyi loolu dinañ ci joxe juróom-ñaari misaal ci ay nit yoo xam ne bàyyi nañ dara ngir yàlla yàlla jox leen lu ko gën ki ci njëkk mooy suleymaan alayhi salaam suleymaan yàlla nattu na ko may ko nguur def ko yonent waaye def ko mu nekk buur koo xam ne daanaka mën nga ne moo jiite àdduna yàlla may koy fas fas yu ne gàññ su fas yi maaj daanaka doo bëgg a def dara ngir loolu da ngay toog rek di seetaan benn bis Souleymane toog di xool fas yi ni ñuy rëpptale ni ñuy maaje loolu jàpp ko ba mu tardé julli tàkkusaan ba mu yëgee ne def na musiba mu daal di indi leen ma fas yi ñu indi fas yi mu daal di rey yépp te xam ngeen ne fas yi moom la daan war di dem jihaad lan la ko yàlla faye ci loolu Souleymane def mooy yàlla indil ko ngelaw li léegi buy dem jihaad au lieu mu yëg ci ay fas wala ay gëléem ak mbaam ci ngelaw li lay toog dem jihaad ngelaw ak fas lu gën a gaaw kon man taraka shay'an lillah awadahu llahu xayran minhu ku bàyyi dara ngir yàlla rek yàlla changé la yàlla remplacé la lu gën li nga bàyyi Souleymane bàyyi na fas yi ngir yàlla mu rey yépp ba mu jeex takk yàlla changé ko ko ngelaw ñaareel mooy as-sahaaba ridwanullahi taala alayhim ajmain gaa yi nga xam ne ñoo àndoon ak yonent te yàlla di leen tagg yàlla tuddee leen ay góor rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi rijalun la tulhihim bay'a wala tijara gaa yooyu keroog ba ñu bàyyee seen alal makka bàyyi seeni soxna bàyyi seen lépp topp yàlla topp yonent bi jëm Madinatul Munawwar lan la leen yàlla terale mooy yàlla jox leen àdduna ubbil leen àdduna ci waxtu wu ndaw yàlla ubbil leen golf bi yépp kon man taraka shay'an lillah awadahu llahu xayran minhu keroog ba saaba yi bàyyee makka lan moo tax ñu bàyyi yàlla rek lañ gëm ak bëgg yonent yàlla muhammad lan lañ ci jële mooy yàlla ubbi leen àdduna yonent bi génnul àdduna lu dul islamisé na golf bi yépp kon ku bàyyi dara ngir yàlla yàlla jox la lu ko gën ñetteel mooy yusuf alayhi salaam yusuf kenn la ci yonent yàlla yónni woon mu taaru taaru boo xam ne nee nañ taar bu doon téeméer la Yuusuf moo moom juróom-ñeent fukki ak juróom-ñeent ñaataa des ci téeméer yi benn benn bi ñun ñëpp moom lañ séddoo waaye yusuf ay jigéen song ko yusuf àdduna song ko seytaane song ko bëgg koo yàqal yusuf daal di lànk tànn kaso ak tàngaayam tànn kaso ak wéetaayam tànn kaso ak ay jafeyam tànn kaso ak ay seenam tànn kaso ak ay dóoram lan la ko yàlla fay mooy wa makkannaahu fil ard yatabawwa'u minha haysu yasha yàlla daal di koy fay mu génn kaso nekk ministre nekk premier ministre bal sax mu jiite réew ma daanaka moo ko jiite woon mu yaataa yimbe lu ko neex xoolal lim bàyyi ak li ko yàlla fay kon ku bàyyi dara ngir yàlla yàlla jox la lu ko gën ñeenteel mooy tey yaa ngi nii yow sama mbokkum jullit yaa ngi nii toog yaa ngi bàyyi lekk yaa ngi bàyyi naan yaa ngi bàyyi bànneexi bakkan yaa ngi bàyyi lu bare bari dem nga sax ba ci li nga bàyyi lekk ak naan sa gémmiñ gi changé na di génne xet waaye xoolal lan la la yàlla fay ci bàyyi bi nga lekk bàyyi naan ba sa gémmiñ gi xeeñ di génne xet yonent bi ne xulufu famu saayim atyabu inda allahi min rihil misk kon li nga bàyyi ak liñ la fay lu gën xulufu famu saayim afdal inda allahi min rihil misk gémmiñu ku woor xet gi muy génne yenent bi nee na moo gën parfum misk ci yàlla tabaraka wa taala kon bàyyi bi nga bàyyi lekk bàyyi bi nga bàyyi naan lan la la ko yàlla fayee sa gémmiñ gi xeeñ mooy sa xet sa xetu gémmiñ di xeeñ ci yàlla parfum bu gën a neex parfum misk kon ku bàyyi dara ngir yàlla yàlla jox ko jox la lu ko gën juróomeel ci ñu bàyyi dara ngir yàlla mooy atsu awliyauhu fi siyaamihim yaa ngi ni mar tey mar mbokk yi lan moo tax tey ngeen mar lenn rek moo tax yàlla da ngeen a bëgg yàlla kontaan ci yéen ndax yàlla dafa woote ne yaa ayuha alladina amanu kutiba alaykum siyaam kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaqun yàlla dafa woote daan ne ana ñan ñooy xiif ngir man ana ñan ñooy mar ngir man yow nga bokk ci ñooñu nga xam ne nangul nañ yàlla xiif ak mar xam ngeen ñooñu bàyyi lekk bàyyi naan ngir yàlla xam ngeen lu leen yàlla di fay yowmal qiyaam yàlla woo leen ba ñëw taxaw mu ne ayna saaimuun ana ñi doon woor ñoom ñëpp ñu jóg taxaw yàlla ubbi benn bunt bu tudd rayyaan yàlla mu ne jaar leen fii suñ fa jaaree keneen dootu fa jaarati kon la xulufu famu saaim atyabu inda allahi min rihil misk waaye ñii rayyaan lañ leen fayee bunt bi nga xam ne biñ fa jaaree keneen dootu fa jaar ku dul ñoom xoolal liñ bàyyi ak li leen yàlla fay kon man taraka shay'an lillah awadahu llahu xayran minhu ku bàyyi dara ngir yàlla yàlla tabaraka wa taala jox la lu ko gën mbokk yi juróom-ñaareel wala juróom-benneel ci nit ñi nga xam ne dañoo bàyyi dara ngir yàlla mooy ashuhada ñi bàyyi soxna bàyyi ay place yu ñu doon liggéeyee bàyyi ay doom bàyyi ay xarit bàyyi ay kër bàyyi ay place gàddu seeni jaasi jox yàlla seen bopp ba ñu dagg seeni baat ñu dee ngir yàlla ba ñu bàyyee dund ngir yàlla la la leen yàlla fay wala taxsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwaat bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun bu leen yaakaar ne gaa yi nga xam ne dañoo dee ngir yàlla dañoo deew ay ay ay néew lañ ay médd lañ yàlla nee na maa ngi leen di wërsëgal waaye yéen yéen a ko yëgul ñoo ñu ngi dund bal ahyaa lan lañ bàyyi dund bi ñu bàyyee dund lan la leen yàlla fay yàlla fay leen dund éternellement fa ñu dem dee amatu fa bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun yàlla nee na ñu ngi dund ca man te maa ngi leen di wërsëgal kon ku bàyyi dara ngir yàlla yàlla jox la lu ko gën man taraka shay'an lillah awadahu llahu xayran min juróom-ñaareel ci ñu bàyyi dara ngir yàlla mooy yonent yàlla yi bàyyi nañ seeni yaram bàyyi seen der ñi gëmul yàlla nekk ci di leen ŋawti ŋawtee guddi ak bëccëg di yàq seen der di leen saaga ak di leen rey ak di leen duma lan la leen yàlla fay malaaka yi di julli ci ñoom inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi saa yi ñu waxee aadam nga ni alayhi salaam yaa ngi julli ci moom suñ ne Moussa nga ni alayhi salaam buñ ne Youssouf nga ni alayhi salaam ñoom loolu ñu bàyyi woon seen der nit ñi di ko yàq di tekki seen yaram lu ci yellu lan la leen yàlla fay mooy malaaka yi di julli ci ñoom nit ñi di leen ñaanal bal sax yàlla tourné waat xelu àdduna bi yëpp ñëpp jublu ci ñoom ñaata nit ñoo tudd aadama ci kaw suuf ñaata nit ñoo tudd Moussa ñaata nit ñoo tudd Isa ñaata ñoo tudd Ibrahim ñaata ñoo tudd Muhammad lan la leen yàlla faye mooy ba ñu bàyyee seen der nit ñi di ko ŋawti ŋawtee nit ñi di ko yàq yàlla teral leen malaaka yi jublu leen jaami yàlla yu baax yi jublu leen waaye adduna bi yëpp jublu leen kon man taraka shay'an lillah awadahu llahu xayran minhu ku bàyyi dara ngir yàlla yàlla jox la lu ko gën mbokk yi juróom-ñetteel juróom-ñetteel ñi doon xeex ci yoonu yàlla ba ñu rey leen allazina qutilu fi sabilillah ñi nga xam dañ leen rey ci yoonu yàlla ñooñu la leen yàlla fay ba ñu bàyyee dund ngir yàlla yàlla dafa jël seeni ruu ginnaaw ba ñu ko ñàkkee ci àdduna yàlla jël ruu yi dugal ci ay picc picc yi nekk biir aljanna dinaaw foofu la ñuy mottalee seen dund kon ku bàyyi dara ngir yàlla yàlla jox la lu ko gën juróom-ñetti tomba ngi nii mbokk yi yuy wane ku bàyyi dara ngir yàlla yàlla jox la lu ko gën kon kii liggéey liggéey bu araam jàpp ne bu bàyyee liggéey bi day dee misaal PMI ku ciy liggéey ba jàpp ne boo ko bàyyee da ngay dee amatoo loo def yonent bi nee na boo ko bàyyee ngir yàlla yàlla jox la lu ko gën kii jaay sàngara ne yëg ne bu bàyyee jaay sàngara yàlla jox la lu ko gën kii bàyyi lekk riba ne yëg ne bu bàyyee riba yàlla jox lu ko gën kii triande di toppale amul métier day dox rek di wuruj ne yëg ne bu bàyyee loolu yàlla jox ko lu ko gën ku bàyyi lekk lu araam yàlla jox la lu dagan ku bàyyi bokkaale yàlla may la tawxiid ku bàyyi bidaa yàlla jox la sunna saa yoo bàyyee dara ngir yàlla yàlla jox la lu ko gën kon mbokk yi ñu ngi ci weeru màgg ñu ngi ci weeru koor ñu war a xeex ak sunu bakkan yi bàyyi bépp tere bu ñu yàlla di tere bàyyi bépp tere bu ñu sunna yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di tere ngir lan ngir yàlla tabaraka wa taala jox ñu lu ko gën man taraka shay'an lillah awadahu llahu xayran minhu ku bàyyi dara ngir yàlla yàlla jox la lu ko gën yal nañ yàlla jéggal yal nañ yàlla nangul yal nañ yàlla may ñu fekk ni gën i déwén asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh